Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci Louis des likes, merci Louis des abonnés, merci également Gaël des bails et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des information. Inbox sénégalais, fait folle montenegro 14 régions du Sénégal. Rokhroukhali, Gorgokhali, ñu ngi leen ñu nekk également ci lal hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm. ñu nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire génne lañ defal moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delloo àdduna suñu borom xale laa jëlee ndaw si gars yi ñu. On avance ensemble dans la magie des Sport TV de Baba Show. l'actualité on continue actualité ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam ne donc kii nga xam ne daal di moo yóbbu Andy Diouf ci banc bi ak également wax ci nga xam ah, mi ngi euh, sang gars ci performance mi def ba tax na am na équipe bu mag a mag bu nekk ci France également Angleterre di bëgg laata gis ngeen ko donc accident bu xaw a doy waar mu génn ci nag gars ah, di doxee boor xaw a sooxitu police nag ne ko dañuy defal li nga xam ne nag test pour xool na la nga nan alcool ou pas mais moom dafa daal di lànk ne lu daal di def test bobu mayo Balotelli gis ngeen ko donc gis ngeen ko ci natal bi ni muy dugg ci li nga xam moy donc ambulance bi le joueur italien donc bi nga xam jamono ñu mooy jóg ci pendant ça également Fred ancien joueur hein, donc de Lyon international également brésilien donc moom daal donc attaque à main armée manam dal gaay dañ ko do di songu ñoo xam ne yor ay armes ay ngànnaay lañ yor jëmale ko ci moom mi nga xam ne nag donc aujourd'hui il est donc euh, presque en fin de carrière du côté du Brésil pendant ce temps nag papa yi Rodrigo moo daal di bind lii d' accord mu ne donc di wax ci nga xam naal ki ngeen di wooye cinq mi ngi nii donc di war ne ki nga xam ne donc Messi lay waxal ñu ngi Messi euh, donc contre Uruguay ak également contre Brésil waa paa bi naan waaw ki ngeen di tuddee sa ki ngeen naan tuddee naan amul problème loolu daal la Papa wax pendant son Victor ok gars yi le décembre bi incha allah rabi lay jeexal li nga xam mooy donc championnat moom ah, moom lay jeexal moom lay jeexal championnat du côté du Brésil daal di ñëw Espagne fi muy passé fête Noël yi après donc ci coupe d' bi daal la ñu war na mën a tàmbali jouer ak waa FC Barcelone kii nag di Mateu Lahoz la Liga ñëwaat loolu daal la Laos daal di daal ki nga xam ne aussi nag mooy donc sport ñëw ne Peligra Stegen Stegen en danger nee ñi ngi wax match li nga xam mooy match Rayo Vallecano sax nee na sax mën na toog beneen match sax contre Porto notamment du ko daal di joué loolu daal la ñu daal di euh, xamle kii nag di Serhou Guirassy l' international euh, guinéen bi nga xam ne jamono ji mi ngi toj du côté donc de la bundes liga bokk ci meilleur buteur yi fi ne nag waa Atlético Madrid daal ñuy xool situation bi di xool lan mooy possibilité pour daal di recruter ki nga xam ne mooy Serhou Guirassy ancien joueur également de Rennes pendant ce temps Ramsdale nga xam ne weeru septembre la gëjoon a joué ak waa euh, Arsenal gannaaw bi nga xam dañu war a daje nag li nga xam ne mooy donc Brentford ki nga xam ne mooy donc donc le gars gardien numéro 1 du monde a jouer Raya ndax fa la bokk moo tax ñu Ramzal moy daal di delluwaat ci camp yi pour euh, donc garder garder match bi donc euh, dans les cages plutôt de de Arsenal Youssef Atal nag gay dañ ko daal di jël tek ko en garde vue lu ko waral moy que ne mom nak xam ngeen né international algérien la gannaaw mu défé ab poste di ñaawul li nga xam moo xew ci Palestine gars yi nag neen loolu mu def dafa mel day inciter ñi nga xam né moy donc ñenn ñuy songu li nga xam né moy donc wa Israël et tout ndax daal ñu daal koy japp fi mu ne donc yéen kaay bu nekk ci Nice mu ko daal di fësal ne daal fi mu ne mi ngi ci loxoy euh, tak der yi ñu xool ndax dañ koy teg garde à wala dañ koy bàyyi loolu daal dañu fësal ci ki nga xam mooy donc Youssef Atal jëm ci aussi ki nga xam mooy donc Sadio Mané Sadio Mané bi nga xam ne gis ngeen ko moom ak kii di donc Lamine Lamine Laftiette Camara daal na koy daal di yëbbal maillot bi nga xam lay du côté de Al Nasr ah mu daal di defësal li Lamine Camara di wax na également fierté bi donc am idolam aussi koo xam ne génération pour de gagner comme Sadio Mané di am reconnaissance jëm ci moom loo xam ne rafet la Arnaud Sangat le joueur franco-sénégal bi nga xam ne nag joué équipe nationale U23 mais toujours sélectionnable avec l'équipe A de de France ak aussi équipe A bu Sénégal moom nag gannaaw Manchester United Manchester City ñi koy tudd fi ne nii nag Lyon mooy xool situation moom du côté de la France xool ndax nañ ko mën a recruter Andy Diouf bilaay Sénégal Sénégal ay gor gars yi Sénégal Sénégal ba gars yi boo ko boo ko boo ko waree rek mu feeñ moo ngoog André Diouf nag moom moo nekk lance ah jëlee nañ ko ay millions millions pour mu ñëw nekk titulaire kii nag di Nampalys Mendy moo <laughs> yooyu quoi xam nga loolu affaire yooyu mooy loolu donc kii nag di Nampalys Mendy moo ñëw jël place am nekk titulaire ci kawam André Diouf nekk remplaçant Nampalys Mendy nag dañ koy encouragé ne xale la day ñëw jóge championnat boo xam ne bokkul ak championnat bi day adapté wu ñun gars yi ah wuy ma euh, kii euh, ko may dara vous comme Aïdara, comme on dit, comme je dis également. On lui souhaite bonne chance. On dit Diouf qui a décidé de jouer également avec l'équipe nationale de France, comme King Hanemoy Donko euh, qui dit Abib Diarok. C'est de l'histoire ancienne pour le Sénégal. On les encourage et dit félicite. Si vous avez bien mais de aussi bonne continuation. Yal Goy Nek Turla parce que tu es un grand joueur et le Sénégal a besoin de toi. Gaï, Diego, un petit retard aux informations Nek C'est toujours un plaisir de vous servir. Vous les likes, vous les abonnés. On avance ensemble dans la magie des e-sportifs et de Babachou. Diakendief.